bi màggal gi tàmbalee ba léegi daa fi ñëwal boppam waxal boppam léegi-léegi mu yowal fi rakkam sëñ Abdeex léegi-léegi mu yowal fi rakkam sëñ Moussa Mahfouz ñoo xam ne kaddu yi ñoo koy jottali kaddu yi nag yi lay ji nga xam ne moo tax ñu ko jottali moo di diggante bu yàgg muy diggante Serigne Touba Mame Ibrahim muy diggante euh, Mame Thierno Ibrahim ak Mbacké Kajoor diggante Mame Thierno Diatta ak Cheikh Mamadou Lamine Bara dox it diggante Cheikh Seydi Mokhtar Serigne Cheikh Awa Balla ak Cheikh Mamadou Lamine Bara sëriñ bi nag nee na ah, mi ngi dalal ñëpp ndax jàpp na ne képp koo xam ne teewul ci màggal bi moo la war a dalal ah, ndax li ko ah, ne sëriñ Mbàkke yi ba di si Mbacké Kadior ci loolu Serigne Touba Mbacké Kadior it mooy barab xam ne euh, fii la borom Daaru Muxti ñëwoon bu ko Serigne Touba woon ci daal ko fi nag mu nekkoon fi ci dëggalu Serigne Touba Mbacké Kadior mooy barab bi nga xam ne fi mu Cheikh Mouhamadou Lamine Bara te lu Serigne Touba yàggal na jaar jaarale ko ci mantal yu baax yi euh, ci dëggalu Serigne Touba Mbacké Kadior it mooy barab bi xam ne Cheikh si Mokhtar suñu Cheikh Awa nag gannaaw bu sëñ bawoo ñaareel tey bu fab diir moo ko fi ci nekk ñëpp ndigal sëñ Tuubaa lañ fi nekk suñu Cheikh Awa Balla moom ko fa yebal daf ko ne dama bëgg nga dem dëkk fa ak Cheikh Mouhamadou Lamine Bara loolu tax seen kóllëre euh, ko doom mu génn àdduna mu tuddewaat ko keneen mu di Cheikh Seydi Mokhtar kon sëriñ Mor Thiam nee na mi ngi daal di ñëpp euh, te di fàttali ne mboolem ko fi teewal moo la war a teewal gannaaw loolu itam man mii mu jàngal bi ñibbi si man gannaaw sëriñ Bara laa la kër googu laa la féetee kon nag sëriñ bi nee na mi ngi dalal gan ñi euh, ngi nuyu mboolem kilifa yi fi teew euh, fii muy jëlee kàddu di fi ëpp ci fi nekk sama kilifa lañ waaye xam naa yéex bu mu yéexee ñoom sax moo tax mënu maa ràññee ki fi mag waaye ci turu ki fi mag. ñu ngi jot li suñu nuyoo jot li déglu sëriñ sëriñ bi nag nee na li muy tëjee moo di di fàttali ne bis bi nga xam ne moom la ñu màggal di bis bi nga xam ne jëli Cheikh Mouhamadou Lamine Bara yeewee taal bi nga xam ne moom la jaar ci laxsaay ne leen am ngeen ngërmul yàlla nee na nag mi ngi fas ci bis boobu ne sëñ Cheikh Mokhtar yàlla fi yàgg di wér te mboolem li mu naan ci liggéey Serigne Touba yàlla àggale ko te la xamal ne moom itam taxawaayam ci Cheikh Serigne Mokhtar li mu fas yéene mooy taxawaay bi nga xam ne Thierno di Serigne Touba taxawaay na ci borom daara taxawaay bi nga xam ne Serigne Cheikh Awa Balla yeesaloon na taxawaay boobu diggante ak Serigne Balla foofu képp la fas yéene taxawaay da fas yéene mu jëm kanam te du dellu ginnaaw mi ngi nuyu autorités yi mboolem kii fii teew ak tarixa bu mën di dalal ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh